voilà voilà alors dañuy daldi wax ni sur la transformation euh, systémique mhm. euh, de l'administration sénégalaise avec le pointage. Mhm. administration souvent gars dañuy gis ni la rek dañuy bu est ce que mhm. li mel rigueur continuer. il faut mu continuer suñu intérêt la sa intérêt la yow yow sa sama intérêt man intérêt wu ñuy seetaan. pour un en un mot intérêt wu Sénégalais yépp la. parce que ñun euh suñu réew yi Sénégal ak yu ni mel. dañoo tardé lool ñun normalement. travailleur bu dëkk Paris. su dee dem bureau 8 heures. travailleur bu dëkk Dakar. 6 heures du matin nga war a dem sa bureau. dans les normes dans les normes. parce que ñoom dañ ñoo raw lu bare bare bare bare léegi ñu nan lañ mën a comprendre yow travailleur bu dëkk Allemagne wala Paris wala Italie wala États-Unis wala feneen ak feneen ak feneen ces travailleurs la ak lu mu mënti doon bu ñu leen dénkee liggéey ba ñu leen dénk suñu leen waxee nee leen dee leen pointé wu seen heure liggéeyukaay à huit heures ñemewuñu huit ñemewuñu huit cinq di leen fekk ci àll bi léegi Sénégal demoon ba yuusu Ndour ci waxam di ko way c'est-à-dire que yow dañu lay liggéeyloo huit heures mm-hmm. seulement doo ñëw huit mais da ngay ñëw neuf heures mm-hmm. wala huit heures et demi mm-hmm. su neuf heures wala huit heures et demi jotee war la fekk la sa biiro nga toog au lieu nga ne necc ba liggéey bañ la nekk dangay ngay ndékki dem waxtaan tuuti nuyu collègue gi woote téléphone def nangam ak nàngam bu 10 heures jotee nga ne taxal ma dem fii ñëwaat suñu biir entreprise yi surtout l'administration ngay gis boo dugg dem ci bureau yi fekk ñu ñu ñu ñu ñu tàllal ay ay ay ay ay ay ay jasneer mhm. di jaay ay cuuraay mhm. ay chemise ay cravate di ko jaayante seen i biir mhm. te pourtant heure boobu ñuy jël pour di jaayante état bi daf leen koy fay wala dégg wax bi si si dégg naa ko bu baax tey jii man dama gëm ne senegal il faut que ñu teg ci administration bi loo xam ne soo xëyee huit heures yow comme man man ak yow nga xam ne ñun suñu suñu suñu cëggal gi lañ yor. Mm-hmm. suñu xëyee huit heures bëgg a liggéey. Mm-hmm. ñun dañoo war a dem bu ñu demee ci tali bi duñu fa fekk kenn. xam nga lu tax parce que dafa war a fekk administration bi ñëpp nekk seen bureau. ñu mm-hmm. mais circule à Dakar heure huit heures. doo bougé. man il m'arrive ma génn sama kër surtout les vendredis quand je dois venir à Walf. Euh, def sama chronique le matin ay sept heures laay génn. mais diggante 7 h ba 8 h tali lay day fees dell. kenn du bouger. ça veut dire que nit ñi ba ñuy ag seen bureau 8 h et demi 9 h et pourtant pourtant réew la moo xam ne ñu bari ci ñun dañuy yew julli fajar. buñ doon fexe préparé wu de telle sorte que yow boo jullee fajar. doo toogaat sa kër directement bureau. 8 h dina fekk ñëpp seen bureau. état bi nag mën leen a dimbalee ci lenn. Mm-hmm. mooy teg les moyens qui leur permettent bo jugee 6 heures do def 30 minutes ci télé bi ci àggoo sa bureau. Mm. ça c'est important et loolu état moko war tay bo demee ci réewu tubaab bi travailleur yi bu ñu xëyee suba bëgg liggéey mais en 30 minutes di yaa ngi sa bureau. Mm-hmm. et loolu c'est important ñu def ko mais encore une fois man dama gëm né il faut obliger xawmu pointage lay doon xawmu ñu koy défé mm-hmm. mais il faut obliger les travailleurs sénégalais. Mm-hmm. à être à l'heure ci seen heure liggéey. muy ben ñaareel ba il faut les obliger bu ñu nekkee seen heure liggéey ñu bañ fa def leneen lu dul liggéey leneen lu dul liggéey. ça c' est important ñoom sax dafa baax ñoom parce que day tax ñu mérito salaire bi nga xam ne moom leen di fay. te gis nga buñ ko réussir dans le public dañ koy réussir dans le privé. Mm-hmm. te li gën a doy waar demal ci yenn entreprise privé yu ne Sénégal mm-hmm. mais seen travailleur xalaatuñu bañ a pointé wu à l'heure demal Sonatel. demal nga xool les travailleurs se pointent à l'heure mm-hmm tay jii non médecin là, yenn saa nga dem ci l'hôpital toog di xaar ñoo la médecin bi ñëwagul. Mhm. pourtant buñ ñu demee dans les structures privées il se pointe à l'heure pour faire le travail. mais yooyu état moo ci war a jóg. Mhm. nga yokk ci nag ñu ne la tey boo defee l'audit de la fonction publique au Sénégal. Mhm. di nga ci fekk ñoo xam ne depuis des années et des années et des années mësuñu gis seen bureau xamuñu kuy seen fuy seen bureau xamuñu sax fu ñuy liggéey te weer wu dee ñu génnee leen salaire am na ñoo nañ té wéru dé ñu ngi lay gëna a mais yoy économie yoy est-ce que est-ce que comprendre nga ñaata la mëna dolil Sénégal mm-hmm. mais yooyu il faut il faut y aller té man dama fatlikou né eh, bi fi Lamine Loum nekkee premier ministre Sénégal Mamadou mm-hmm. Lamine Loum mm-hmm. nga xam c'est le dernier premier ministre d'abdou Abdou Diouf Lamine Loum démon na ba dafa gescompté woon le téléphone de l'administration gescompté c'est-à-dire que téléphone bu nekk dañ ci def crédit pour un mois un franc doo ko ci yok mais fi l'administration bo démé bureau yi làmp yaa ngi tàkk à tout moment. Mhm. clim yi soo dee wàcc doo fay. Euh, bureau yi nit ñaa ngi waxtaan. Mhm. di di def seen ay njaay di def leneen ak leneen ak leneen te buñ toogoon le cinq état bi fayut ñëpp dégg leen. tout à fait l' administration publique les personnes qui vivent dans le luxe actuellement ñi xamante ni dañoo commencé di sànni tamit ay. ay détracteurs toujours du régime de mm-hmm. ne commencé à def loo maintenir ni modi ça aux sorcières mm-hmm. parce que euh, par rapport à à des activistes qui ont maintenu le cas particulier de Badjakate, avec la gestion les rapports qui ont maintenu, le rapport des cours des comptes ñu nous nañu moytu arrêté de maintenir souvent ñoom dinañ tomber dans l'émotion est-ce que ces rapports là aussi doivent rester sans euh, sans sanction est-ce que vous nga un ancien responsable régime bi fi pas encore wala ñu woo ko ci pas encore amul ça n'existe pas. Mhm. est-ce que vous nga fi kenn ku critiquer le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye quand je dis critiquer le gouvernement c'est critiquer son action. Mhm. man waxuma ngay wax ci viwu jàmbur waxuma ngay mais critiquer l'action du gouvernement ñu inquiété la avez vu? Je gisaguma ko man bu Je rek wax ma. le dernier cas c'est les les membres de Bougane Gueye de Gëm mais tey ils sont libres. c'est normal ils doivent être libres. Mhm. est-ce que gis nga benn yoon ñu ne Bassirou Diomaye Faye def na discours sàngam wala Ousmane Sonko def na discours sàngam wala ministre sàngam def na discours sàngam nit génn ne discours bi baaxul d'accord ma ci parce que nangam ak nangam ñu inquiété ko. non man de gisaguma ko. Mm. du homme politique du journaliste. maintenant si man Moustapha Diop. Mm. dama toog ci plateau. muy télé muy site internet muy lu mu doon même su ma bindee. Mm. mais saaga nit. mais bu la procureur jàppul il sert à quoi le procureur. dina doy waar tamit. il sert à quoi. comme si on se dit dans ce pays là mën nga génn fekk oto jàmbur nga jël caabi yi taal ko dem yóbbu ko voilà y' a rien. Mhm. nekk beneen bi mooy yaa ngi wax ne rapport yi. Mhm. mais il faut que euh, buñ ci wax également ñu ñu reste si les journalistes de tuddee les faits. man mhm. j'adore les faits.

ku la mën a rapport. boo xam ne Bassirou Diomaye moo ñu def ko. c'est ça n'existe pas. Mhm. le 24 mars la woon élection yi doon. ba léegi. Mhm. gisaguma fi mission d'audit bu ñu part l'audit du du fichier du personnel de l'administration publique. voilà et ça c'est normal. Mhm. te ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. tout à fait man gisagoo fi benn mission d'audit du IGE du Cour des comptes du OFNAC du BEN, boo xam dañ ko yónni ne ko demal saytu béréb sàngam. Mhm. ñu ne ku ko signé ñu ne Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko. Mhm. gisaguma ko li am te mooy les faits encore une fois. mooy sous le règne de Macky Sall. Macky Sall moo daan toog ba mu neex ko mu ne IGE parce que loolu la ko loi may inspection générale d'État. dem leen ngeen saytu béréb Sangam. ñu dem saytu béréb saa nga defal ko rapport ñëw jox ko ne ko rapport baa ngi nii. mu jël teg teg ci loxo. Mhm. la cour des comptes dem def ay rapport ba tey ci sous le règne de mhm. def ay recommandations ne diw mii saañaa mhm. def na nangam ak nangam ak nangam cour des comptes mi ngi recommandé ne buñ ko joxati fonction mu koy occupé ci réew wala fu xaalis di nekk mu ko jegee jegeeti amoon na ci temps juuf amoon na ci temps wu ñoo xam ne xam nga leen xam naa leen yoo xam Cour des comptes wala OFNAC moo bind noir sur blanc noir sur blanc ne ñii bu occupé te yenn fonction yi. Mm-hmm. Macky Sall jël ñooñu def leen ay ministre mm-hmm. le cas particulier de Cheikh Omar Anne. voilà bëgguma koon tudd yaa ko tudd. Mm-hmm. yaa ngi dégg léegi sous régime bi changé le président de la république Bassirou Diomaye Faye ñëw. ne la seule chose que je demande mooy nañ publier rapport yi. pare na ci nañ ko publier. Et publier bobo, ñun sénégalais ñun ñoo doon exiger ñu publier ko parce que soo xoolee ay ku mel ne Birahim Seck bu forum civil. mais yàgg naa wax ne nañ publier rapport yi. Mhm. wax na ko du ben du ñaar nañ publier rapport nañ publier rapport yi. Mhm. ken mosu ko faale président de la république ñëw ne nañ ko publier mais lolu, amul lenn luñ ci mëna reprocher président de la république. Mhm. benen bi moy biñ ko publier ba légui dégg go premier ministre wala président de la république wax ne rapport yi kat wax na nangam ñi ñi tudd yëpp na leen japp tej Mm-hmm. waxaguñ ko kenn moo ci wax muy une voix officielle mooy le ministre de la justice. Mm-hmm. Ousmane Diagne qu'est-ce qu'il nous dit c'est encore des faits Ousmane Diagne nous dit moom magistrat la. Mm-hmm. bokkoon ci magistrat yi gën a kawe ci réew mi. nekkoon procureur de la république jóge fa dem cour suprême. mu wax lu leer mooy moom dafa jàpp ne rapport bu ko cour des comptes defee corps bu mel ni cour des comptes def ko. amul leneen lu tax a jóg rapport bi loolu ñu jébbal ko yoon. te looluy dëgg. léegi rapport yooyu li ñu war a wax kay mooy lan lan moo tax ñuy xaar ba léegi mais wul ñu wax lu tax rapport yi génn. li ñuy xaar te loolu ci ministre bi laa ko déggee. Mm. mooy moo wax moom ministre bi ne rapport dinañ ko jox ay magistrats yoo xam ne am nañu intégrité bi am compétence bi am expérience bi dinañ leen jox rapport yi. peut-être ces magistrats là nommé guñ peut-être je ne sais pas peut-être nommé guñ peut-être que ñi fi nek lay wax xawma ci dara mais su ko va rek c'est parce que dama japp né amna ño xamné dafa japp né ñoñu amuñu expérience bi amuñu intégrité bi. il faut ñu xaar ñuko am. bis dossier politique là aussi. oui c'est le dossier. en fait ce n'est même pas des dossiers politiques. Non, parce que dossiers politiques, c'est militants voilà. voilà. C'est-à-dire que c'est des dossiers qui concernent des acteurs politiques, mm-hmm. mais ce pas des dossiers politiques. Mm-hmm c'est des dossiers qui concernent les acteurs politiques. c'est différent mhm. parce que man ministre. Mhm. man man ministre. Mhm. sans ma beaucoup de parti. oui est-ce que kon je suis dossier politique là non beaucoup tout à fait. man Diop DG. ça ma de parti. est-ce que je suis un dossier politique là non non. les je suis parti aussi je wax dossier politique non.